allahuma callimna maa yanfacuna wanfacna bimaa callamtana wa zidna cilman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu Rewmi FM 97.5 dellusiwaat nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy topp ci waxtaan suba si ci waxtu wi ñu fas yéene wéyandi suñu waxtaan ya ñu woon ak yéen yéen a ngi fàttaliku woon nu ngi taxawoon ci buntu ba nga xamante ne mooy fa yàlla suñu boroom tabaraka wa di ñaax doomu aadama di kone ne moom yàlla di moo dogal ñu jaamu ko waaye ñu rafetal jëmmale ko ci ñaari wiyuri yéen a ngi fàttaliku woon démb bañ doon yëkkati jotaay wi ñu ngi taxawoon ak ci ñaareelu aaya ba nekk ci suratul isra di aaya 24 waxfit lahuma janahan zullin min rahmatin wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayaani sagira borom bi ne yow doomu aadama bi na nga woyofal say mbagg ci say kanamu ñaari wuyjur te nga umbal leen kersa ak yërmande ak cofel waaye nang leen ñaanal yàlla yàlla yërëm leen kom nañ la yërëmee woon ba nga nekkee gone ñu taxawoon ci bunt boobu toftal si waxu boroom xam-xam ba ne kama aatuuka xaqaka fi dacfika fala tansa xaqahuma fi dacfuhuma boroom xam-xam bi nee na comme say ñaari wuyjur yi nañu ñu taxawee woon ci say àq jamono bi nga néewee kàttan nga toll ci néew doole ngel la waaye ñoom it bu ñu tolloo ci néew kattan ak ci néew doole buleen leen ñoonu lañu la jàppoo woon waxtaan bi ba ñu yegg si ki yéen fa yonent bi di joxe juróomi màndarga yi nga xamante ne nee na nanga ko wattu yow doomu aadama bi li jiitu juróom yi di ñëw su ko defee foofu la ñu taxawoon ak yéen tey bi iznillahi subhaanahu wa taala ñu fas yéene wéyandik ci wax boroom xam-xam ba ñu naan xasanul basri rahimahullahu taala qaala xasanul basri rahimahullah boroom xam-xam bi di xasanul basri yal na ko buur yàlla gërëm nee na ibnu anta ayyaamun kullama zahaba yowmun zahaba baaduk nee na yow doomu aadama bi xamal ne sa dund bi yëpp ay fan la waaye xamal ne bépp fan ba ñëw jaar am na lu wàññeeku ci yow nee na yow doomu aadama xamal ne sa dund ay fan lañu ay bés la ya ngay dund bisi àddina yay ñëw di jaar di jàll mooy sa dund ba tax na mu ne la bépp fan bépp bés ba ñëw gane si la xamal ne bés boobu wàññeeku na ci sa dund bi moo tax mu ne ibnu aadam yow doomu aadama bi xamal ne innama anta ayyaamun xamal ne kat ah sa lépp ñu ko mooñaale bés yi ñëw di jaar di jàll di dem sa dund bi mooy fan yalay ñëw gane si ñuy dem ba tax na xamal ku kullama zahaba yowmun bépp fan bépp bés ba ñëw jaar jàll xamal ne zahaba baaduk am na lu wàññeeku si yow ba tax na yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ma yàlla xamal lu kenn xamul ma yàlla won lu kenn gisul moo ñu baaxee ci xadis bi ne na wottu juróom laata juróom yi di ñëw démb fa taxawoon ak yen tey ndegem fanu doomu aadama bi ay bés lañu xamal ne sa yonent bi sallallahu alayhi wa moola waajalal préparé la nay occupé bés yooyee ba tax na mu ne la na nga wottu juróom lu jiitu juróom yi di ñëw loolu moo nekkoon suñu buntu bañ a taxawoon démb yonent boobu sallallahu alayhi wa moo bëgg a organiser bi fan yuy ñëw muy jàll di jàll di dem noo ci war a occuper sa temps noo ci war a nekkee nekkin bu mucc ayib noo ci nara nekkee nekkin bi nga xamante ne keroog ëllëg bés penc bu ko buur yàlla fayee dinga kontaan lool su ko defee nañ leen bokk déglu xadis ba nga xamante ne moom la suñu yonentu bi sallallahu alayhi wa baaxe su ko defee kenn ku nekk si ñun na jël xadis bi natt ku ci jëmmam rawatina yow doom bi nga xamante ne say ñaari waajur ñu ngi dund wala yow waajur bi nga xamante ne yàlla dénk na la doom njaboot noo leen di sàmmee noo leen di aare noo leen di saytoo ba leen teg ci yoonu yàlla di siraatullahi almustaqim yonentu bi sallallahu alayhi wa lañ ñu fa xamalal lum ñu xamal ci noonu la ñu war a wottoo suñuy njaboot yow mi di waajur bu góor nañ leen bokk déglu xadisu yonentu bi sallallahu alayhi wa waaye yow mi di waajur bu jigéen nañ leen àndandoor déglu xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laalla xadis bi dinañu amal njëriñ joo xamante ne kenn ku nekk ci ñun bu ko wottoo daal di ko jëfandikoo amaana dinañu gis résultat bi nga xamante ne moom lañu suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg a baaxee ngir ñu taxawee ko taxawaay bu mel nii ci suñu dund suñu digganteeg suñuy njaboot waaye suñu digganteeg suñuy wayjur képp ku bëgg xam la yonent bi tegtal fa yonent bi joxoñ na nga ànd ak ñun ci réew Rewmi FM 97.5 ci waxtaanu suba bay jaar fii ci waxtu bi mbokk yi yann jàmm yàlla nekk ci yenn ak seeni njaboot xadis bi jëlee nañ ko ci saxaabi bu ñu naan abi hurayrata radiallahu anhu abi hurayrata radiallahu anhu nee na anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaal ida maata al insaanu inqata'a anhu amaluhu illa min salaasatin illa min sadaqatin jaariya aw cilmin yuntafacu bihi aw waladin saalihin yadcu lah muslim mbokk yi saxaabi bu mag ki ñu naan abi hurayrata radiallahu anhu yal na ko buur yàlla gërëm moo ñuy baaxee ci xadis bi taxawaayu wuy jur ci doomam waaye taxawaayu jullit bi ci pénc bi ba tax na nañ leen bokk déglu la yonentu bi occupé loo jullit bi ci dundam nee na yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu baaxee nañu ida maata insaanu bu doomu aadama bi dëddoo bu doomu adama bi faatoo mu jeexal ci dundu àddina si mu dem wuyu ji boromam nee na doomu aadama bi de bu génnee ci dundu àddina in qataa anhu amaluhu illa min salasatin bépp jëf jamu doon jëf dañuy taxaw dañuy dagg kenn dootul ko yiw kenn dootul ko bindal bàkkaar mboolem jëf ya doomu aadama bi di def mboolem jëf ba doomu aadama bi nekkoon di jëf moo xam lu baax la walla safaanu lu baax yonent bi nee doomu aadama boobu de bu faatoo mbiram léppay dagg mu ne bem des ñitti jëf moo tax mu ne illa min salaasatin lu dut ñitti jëfi moom yooyu du dagg dañ ko koy yët saa ne dañ ko koy jox saa ne mu tàmbali si njëlbeen bi mu ne illaa min sadaqatin jaariya nee na xanaa du loolu mooy la nga xamante ne mooy sarax bay wéy sarax bay wéy sarax bi nga xamante ne du dagg sarax bi nga xamante ne da koy fekk foofu mu tëdd ñaareel bi mooy aw ilmin yuntafau bihi wala xam-xam ji nga xamante ne dakaa jàng ba mu xam ko mu bàyyi ko fi di ko jàngale képp ku jëfandikoo xam-xam woowu yiw boobu da koy fekk foofu mu tëdd ci bàmmelam ñetteel bi mu ne aw waladin saalihin yad'u lahu wala mu bàyyi fi doom ju baax joo xamante ne da koy ñaanal yàlla xadis bi muslim moo ko solo mbokk yi yan jàmm yàlla nekk ci yenn ak seen njaboot bi léegi yéen a ngi ànd ak ñun ci waxtaanu suba si fii ci Rewmi FM 97.5 sallallahu alayhi wa mooy organiser jullit bi nu mu war a taxawee boppam waaye nu mu war a taxawee njabootam ba tax na mu ne jullit boobu de bu yàlla dogalee ci moom mu génne àddina mboolem jëf ya mu doon jëf léppay dagg dootut am benn relation ak jëf yooyu mu doon jëf yonent bi nee na bem des ñitti jëf ñitti jëf yooyu noonu nag mu teg si illa min sadaqatin jaariya buñ ne sadaqatin jaariya nag mooy sarax bi nga xamante ne bàyyi nga ko fii sarax bi mën na doon jàkka joo tabax nit ñi di fa julli mën na doon téere bi nga bind say loxo nit ñi di ko jàng mën na doon matériel ya nga jënd dugal ko ci jàkka ji nit ñi di ko jëfandikoo bu dee moquette la bassan si jaada robine bi nga installé ci jàkka ji ndaal siwo satala ila axirihi lépp loo xamante ne jullit nii mënees nañ kaa jëfandikoo ci jàkk yàlla ji loolu yëpp day bokk ci sadaqatin jaariya lu tee nga feyal waa jàkka ji seen facture courant bi léegi day dugg ci sadaqatin jaariya lu tee nga feyal jàkka seen facture ndox bi léegi loolu yëpp day dugg ci sadaqatin jaariya lépp loo xamante ne jàkka ji soxla na ko te nga man ko te boo ko defee doo ci gaañ te doo ci wonewu sa bopp loolu yëpp day bokk ci sadaqatin jaariya kon yow mi yàlla dénk astuut gannaaw bi nga déggee xadis bi góor-góorlul defal sa kémtalay kàttan di financer lay dem ci jàkk ci ndax nga bokk ci ñay préparel seen bopp ñay épargnel seen bopp sadaqatin jaariya nga xamante ne képp ku jëfandikoo loolu nga def si jàkk ji xattaa boo fi nekkul yiw woowu yàlla dala koy jox foofu nga tëdd ci sa bàmmeel yiw boobu dalay fekk foofu nga tëdd ci say bàmmeel sallallahu alayhi wa ne ñaareel bi mooy aw ilmin yuntafau bihi wala xam-xam joo xamante ne danga ko xam ba la wéer danga ko xam ba mu wér nga daal ko xam xamle nit ñi wala nga bàyyi ko fi képp ku jëfandikoo ci xam-xam jooju ah xamal ne lépp lum ci fàggoo ci yiw yiw boobu noonu yow it dañ la si bindal sa paar ndax yaa doon sabab boobu doy na rek si masala doy na rek ñu joxe si misaal nga ubbi daara di jàngal nit ñi walla di jàngal al di nit ñi alquran nga jàng alquran di ko jàngale wala ngay dimbali nit ñi lenn ci seeni diine képp ku si gindeeku képp ku si orienté wu képp ku ci gàggantewu xamal ne loolu mu gàgganti loolu mu orienté lépp lu mu jëf gannaaw bu mu déggee loolu ngay wax walla gannaaw bu mu déggee loolu nga ko jàngal bem ci nekk nekkin bu mucc ayib lépp lu mu def digganteem ak boroomam bu ko yàlla di bindal yiw da koy bindal sa paar waaw bu ko yalla di bindal yiw da koy bindaaleel sa paar foofu nga tëdd yiw boobu da lay fekk foofu nga nekk ci sa bàmmeel dañ lay yónnee yiw boobu sallallahu alayhi wa sallam teg si ñetteel bi nee na aw waladin saalihin yad'u lahu wala nga wàcc fi doom ju baax joo xamante ne dalay ñaanal yàlla njëggal ak xéwal mën na doon doombu góor bi nga dugal daara ja nga yar ko yarinu islaam nga won ko yàlla won ko njàngali yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam nga góor-góorlu ci moom ba mu lamboo jikko ju baax muy xool lu baax di déglu lu baax di comporté woo bu mucc ayib kooku saa yu mu tàllalee loxoom ne allahumma gfir walidi allahuma axfir lahuma warhamhuma kama rabbayani saghira ñaan boobu day dal yonent bi moo la garanti lii kon yow mi ñuy déglu yow mi ànd ñun ci Rewmi FM 97.5 ci waxtaanu suba si lañu jël xadis kanam ñu nattee ko suñu bopp nattee ko suñu njaboot nattee ko ci suñu am-am nattee ko ci suñu xam-xam ba xam ñetti mbir yi installé lenn ci suñu dundu bu dee waaw am na lañ si installé ci suñu dund kon ñu sant yàlla ñu ne alhamdulillahi ala kulli xaal bu fekkee ne am na loo xamante ne installé wuñu ko ci suñu dundu ci yonent bi sallallahu alayhi lu mu wax si ñetti màndarga yi nañu góor góorlu ba ñu installé benn ci ñett ñi nañu créer suñu bopp sadaqatun ya te mooy sarax bi nga xamante ne tiyaabo yasi ruus day wéy loolu du dagg abadan wala ñu installé ci suñu jëmm ji xam-xam joo xamante ne dinañ ko fi bàyyi képp ku su jëfandikoo képp ku si langaamoo jëfandikoo ci su ko defee bépp yiw ba mu am ci xam-xam jooju yiw bi ni mel nañ lay bindal yow mi ko tax a xamloo keneen ku ko doon jëfandikoo wala ñu installé ci suñu jëmm ji tak ndeer bi nga xamante ni yàlla def ñu kaa dénk mu doon doom moo xam doom bu góor moo xam doom bu jigéen ngella waaye nañ jël loxoom dugal ko ci daara yi alquran ya nekk ci biir réew mi mu jàng alquran jàng sunna yonent bi sallallahu alayhi wa bépp ndigli ba yàlla suñu borom tabaraka wa taala digli ci alquraanam ji mu góor góorlu teg fa tànkaam di ko doxalee ci kémtalaay kattanam waaye bépp tere ba nga xamante ne borom bi tabaraka wa taala tere na ko ci téeréem ji mu sore ko comme ni muy dawee safara su koy lor wala mu sore ko comme na muy sore rab ja koy waaja lor su ko defee kooku saa yu mu tàllalee loxoom ne yàlla ma ngi lay ñaan yàlla nga ma jéggal jéggalaaleel samay wuyjur yàlla day nangu ñaanam jooju su ko defee ñu déggee xadis bi nii lii la suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waajalal jullit bi nga xamante ne nii lañ ko bëggee ngir mu préparel boppam la nga xamante ne moom la yonent tegtal ne jullit bu ne war nga bàyyi sa xel war ngaa bàyyi sa xel ngir la nga xamante ne moo nekk sa kanam mooy la nga xamante ne sa dund bi war nga koo consacré fépp fu yàlla suñu borom tabaraka wa taala sopp fépp fu suñu borom tabaraka wa taala kirim kon mbokk yi ñu ngi leen di fàttali ni yéen a ngi ànd ak ñun ci réew Rewmi FM 97.5 waxtaan bi di jógee ko fii ci daara ji ñaan yàlla suñu borom lépp lu ñu waxtaan lépp lu ñu fi yëkkati kàddu yal nañu ko buur yàlla yombalal ñu mën kaa jëfee bi iznillahi subhaanahu wa mbokk yi bi léegi ngéneelu jëf yi bokk na ci ñaan ndax yàlla tabaraka wa dafa bëgg jaam mu tàllal loxo mu di ko ñaan kon képp koo xamante ne day rëy rëylu duy ñaan yàlla yàlla dakay mere moo tax ñu bëgg leen andil beneen buntu ñu sëf ko ci buntu bu weesu mooy buntu ñaan ñaan yàlla fadlul du'a nginil ba nekk ci ñaan qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa inna rabbakum xayiyun karimun yastaxyi min abdihi an yarfaca ilayhi yadayhi fa yarudduhuma sifran aw qaala xaa'ibiin mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñuy baaxee ngeneel ba nekk ci tàllal loxo ba jaam bi di dëkk loxoom di ñaan yàlla ngëneel bu mag a fa nekk aka neexoon ñu xam ko saa su ne dinañ ko dékkee di ko def sallallahu alayhi wa ma yàlla won lu kenn gisul moo ñu baaxee xadis bi nee na inna rabbakum xajjiyun karimun naka seen boroom ah day am kersa day am gàcce te buur bu tedd la tax yastaxyi dina gàccewoo dina bañ nangu ñaanu jullit bi nga xamante ne an yarfaa ilayhi yadahu jullit bi daal di yëkkati ñaari loxoom fa yarduhuma sifran mu di delloo laqu jullit bi ñaan mu bañ kaa jox lam kay ñaan muy gantal ñaanu jullit boobu yalla day gàccewoo def loolu boo dee sañ nañ wax dañ na boobu buur bi day rusa delloo julit bi dikk loxom di ko ñaan mu bañ kaa nangul ñaanam walla bu di tas yaakaaraam yaakaar ba am si ñaan ba may ñaan yàlla moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa di ñu jox garanti certitude kóolute bu toll ni yow jullit bi del dikk sa loxo di ko ñaan del dikk sa loxo di ñaan yàlla day wax sa soxla yàlla day tiis day diis yàlla say soxla donte xam na ko donte moo la ko teg waaye dafa bëgg nga jàllarbe ko woo ko won ko ne yaa ma teg li ma nekkee nii li ma mel nii yaa ma ko teg li ma nekkee nii yaa ko teg kon ma lay ñaan nga teggil ma ko ba tax na sallallahu alayhi wa ne inna rabbakum kii di seeni borom de xayyiyun karimun buur fi nekk la sax dakk te buur bu tedd ci nguuram yastaxyi day am gàcce min abdihi ci jaamam an yarfaa ilayhi yadayhi jaam bi dëkk ñaari loxoom tàllal ko fa moom fa yarudduhuma sifran muy gantal ñaanu jaam boobu tàllal loxom mu di ko ñaan wala muy bañ nangu ñaanaam aw qaala xaa'ibiin walla mu di ko gàcceel walla mu di ko bañ nangu mu di ko gantal ñaan ba doomu aadama bi di ñaan moo buñ demee xool ca suratul baqara borom bi tabaraka wa taala mu ngi wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ko jaami di soxla bokk na ci keroog bu mu ne yonent bi alayhi wa sallam sama jaami de buñ ma la laajee ne leen man yàlla maa gën a jege képp ku ma a ñaan lang ma bugg a ñaan bu ñu demee xool ca suratul baqara dinañ fa fekk borom bi tabaraka wa taala di baaxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko wa ida saalaka ibaadi anni sama jaam yi de buñ ma la laajee naka man yàlla ne leen fa inni man yàlla de qaribun ku jege la ujibu daawata daa'i kuy nangu ñaanu képp ku ma ñaan waaw ñaanu képp ku ñaan man yàlla ku jege ngir ma mën nangu ñaanu képp ku tàllal loxoom ngir bu ni mu di ma ñaan waaw inni qaribun ujibu daawata daa'i iza da'aani waaye fekk jëmm jooju mu di ma ñaan saa yu ma ñaanee dinaa ko nangul ñaan ba ñaan waaw dina kon nangul loolu mu ma ñaan waaw su ko defee ñu nit ñu ngi tàllal loxo suñu borom tabaraka wa di ko ñaan di ko ne allahumma musarrif alqulubi sarrif qulubana ala taatik ñu ngi koy ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala buur bi nga xamante ne mooy wulbati xoli mooy tasaare xoli mooy jëmale xoli fu ko soob yal na borom bi wulbati suñu xol orienté suñu xol jëmale ko ci topp ndigalam bàyyi ay tereem suñu yaay di Aisha radiyallahu anha wala sahaabi bi di Abdullahi bun Umar radiyallahu anhu nee na anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam qaal inna alquluuba xam leen ne xolu doomu aadama yi de inna aadam xam leen ne xolu doomu aadama yi de mu ngi séddale ko ci suñu boroom comme num ko soobe waaw mu ne xam leen ne xolu doomu aadama yi mu ngi séddale ko ci suñu borom comme num ko soobee xol yi ñu ngi nekk ci suñu borom comme num ko soobee mu di ko wëlbati comme num ko soobe subhaanahu wa taala tax na moo tax mu ne innal quluba bani aadama kullaha bayna asaabi arrahman bayna isbain min asaabi raxmaan waaw nee na xuluuba waaxidun yusarrifu xaysu yasha noonu lay wulbati xolu doomu aadama yi num ko soobee kon ñu ne ñu ngi koy ñaan borom bi tabaraka wa taala yal na borom bi wulbati suñu xol jëmale ko ila kullu ma yuhibbuhu wa yarda nasaluhu jalla wa ala an yajalana min allazina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana mbokk yi waxtaan bi jeexul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 aqulu ma tasmaun wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa barakatuhu wa barakatuhu wa barakatuhu